yenn ardeur yi ci ay revendications d'ordre salarial état bi mënatul yokk salaire loolu moom jaratul sax ñu fiy indi ay plateforme pour loolu mënatuñ ko parce que ce n'est plus possible atteindre nañu le maximum qu'on pouvait faire ça c'est important monsieur le premier ministre que le gouvernement reste clair sur cette question salariale on ne peut pas aller au-delà parce qu'on est allé au-delà de même l'espérance des syndicalistes c'est la vérité donc mais là il faut faire les efforts aussi vers d'autres secteurs et d'autres catégories de citoyens puisque nous partageons ce pays et nous devons partager les fruits de la croissance de façon équitable ñu nekk ci kaw gi bëgg ndox bëgg courant bëgg ay yoon aussi dañ leen war a gestu répondre à leurs demandes les jeunes qui ont besoin d'emploi qui ont besoin de financement qui ont besoin de formation on doit répondre à leurs demande et cetera, et cetera. Les étudiants qui ont besoin encore de construction dans les universités, on doit faire face à toutes ces obligations. donc yaakaar naa ne ku gis effort yi état bi def war nañ ko mën nag nangul li nga xam ne mënu ko def ñu may ko ba jëmmi jamono su jamono changé gën a neex mu mën revenir là donc lii laa bëggoon ci tënk xam naa ne tableau bi li ngeen fi wax yëpp muy CNTS CNTS FC UNSAS FTGS B FGTS B CSA ak euh, SYNPICS je pense te bu ma gën si ñu fi jël kàddu plus le cahier de doléance bi ma jot si yeneen centrales yi tënk nañu lépp pour étudier ko xool lépp loo xam ne mënees na ko def ñu def ko li nga xam ne moom mu ne su ko def su ko defee ñu bàyyi ko ba beneen jamono ju gën a yomb waaye wax dëgg yàlla xam nañ ne daal gouvernement bi moom def na ay effort yu rëy loolu c'est incontestable donc maa ngi ñaan secteur privé aussi li mu mën ci kàttanam mu mu def ko mais aussi ñu xam ne secteur privé aussi dafay jànkantuwante ak situation bu metti parce que la crise elle est globale elle mondiale te li indi crise bi jeexagul muy xamuñ sax fu mu jëm donc il faut ñu xam ne y une situation particulière mais ñoom li ñu mën aussi ñu def ko et ñu gaaw ko def comme ça ñu jàll ci